ñëpp convenir ci loolu mooy force spéciale bi dañu gis ne tous les éléments yi nga xam ne dañ leen ci teg bët wala boog ñu topp leen ci Pastef la ñu bokk est-ce que lii xew nii yëpp nekkul loo xam ne peut-être daf ñuy jëmee ci risque de dissolution bu parti Pastef. bon dafa am loo xam nag Pastef fa mën a toog pour défense bi seen bopp man bokkuma Pastef tamit. appréciation. bon dama koy limiter toujours parce que. Mm-hmm. ce n'est pas parce que j'ai peur de taquer Ousmane Sonko ou de Ousmane Sonko faale wu ko il le sait bien mais dama ci amul intéret euh, ñoo bokk lu ñuy def on combat le gars su plusieurs problèmes ñu dajaloo dañuy bokk xeex pire bi lu ci gën a bon actuellement l' essentiel mooy combattre Macky Sall ci troisième mandat bi pour Sénégalais yi am jàmm parce que boobu moo yées boobu mooy ndayu yëpp arrestation Ousmane Sonko force spéciale euh, force déguisée xaw ma force de quoi Mm-hmm. encore yooyu yëpp troisième mandat bi commanditaire bi troisième mandat boobu la ñuy xeex ci biir loolu nag su ci sonk amee taxawaay bu baax même Sonko su amee ay erreur yu mën a jàngat dama koy mettre à côté jàngat li waral yëf yi ba noppi. Mm-hmm. loolu ci la peuple bi yëpp am soxla loolu moo tax du may liir loolu pour génne seen erreur lii mooy erreur lii du erreur loolu moo tax voilà du bañ koo gis du manque de cohérence du manque de d' mais dafa am lu solo fi mu ne nii mu ñu teg li waral problème problème saa bu amee ku nekk nañ indi li ko indi. nañ indi lan moo commandé problème boobu. Hmm. donc mooy troisième mandat Macky Sall. Hmm. soo fi amee élément positif nag moom dina leeral acharnement bi ñuy def ci ñoom xëy na ainsi de hmm. euh, voilà dinañ gën a placé ci man ci ci wax mais daal ni ko gis nii daal du positif rek ah Macky Sall moom actuellement il tire tout ce qui tout ce qu'il bouge ñu a teg fi ñu teg Ousmane Sonko parce que Serigne Touba teg ma fa. Cheikh Abdou Mbacké Badouli ba ki dem la génn prison. suñ mënoon dugal fa Modou Bousso Dieng ñu ba dañ may àtte damay leen eh hasbunallahu wa ni'mal wakil wax leen leen Macky Sall neen ko faale wu ma ko man fi la ma fekk fi la may baax ba may xeex Abdoulaye Wade daf ma doon woo personnellement di ma woo voilà un marabout voilà un ku baax a ngi nii marabout ñu lay mel une fois Wade àndu na mu toog di def pire doon def may wax lam daan wax non voilà un voyou <laughs> c'est grave hmm. <laughs> d'accord dañuy dañuy dañuy def transition directement daal di wax wax nga sànq ci wàllu troisième mandat mu concerne véritablement de la politique ñu jëm également ci élection législative yi nga xam ne war nañ ko amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 euh, troisième mandat boobu opposition bi ne élection yi xeetu référendum la ngir mën a xool ndax waaja na am troisième mandat wala du ko am lépp ngi aju ci résultat yi nga xam ne ñoo fay tukkee euh, sëñ bi est-ce que yow bokk nga si ñi nga xalaat ne ñi nga xam ñi xam ne jàpp nañu ne mbir mu référendum xeetu référendum lay doon. waaw ku woteel Macky Sall rek troisième man nga wote de parce que. Mm-hmm. avec tout le respect que dois au président. Hmm, wanewul sérieux as gor day gore waaw man ni quoi cellam ci kay mais na atte nañu rek libérer tout le monde man mënumaa gis nit li fi Macky Sall wax man Macky Sall kenn du ma dégg ci troisième mandat lii maa ko bind ça veut dire bu ñuy wax ay juriste amul espace de discussion amul juridisme l'auteur de la constitution la constitution est forte mais ne peut pas être plus forte que la conscience de son auteur ça veut dire ki bind ne lii laa bëgg a bind c'est ça la constitution ce n'est pas li ñu bind français déedéet français bi làkk la ku neex mën ko commenter non mais l'esprit ce que l'auteur de la constitution veut écrire nga xam ne loolu la bind nga xam ne c'est la valeur de la constitution nga xam ne loolu la bind lii mooy constitution bi mais loolu mooy constitution bi. est-ce que interprétation du yàq loolu yëpp aussi. non waaw parce que non mais ku bëgg a interpréter hypocrite mais dégg li ma la wax ki bind mi fi mi ngi dund. li fi waxoon yàggul nee na man Macky Sall wala man El Hadj Macky Sall bu waaye bii ci la bokk 2024 pare naa ci ki mu ko doon bind ndool muy Ismaïla Madior Fall prof euh, un professeur vraiment je le considère plus un professeur valable en tout cas un professeur sérieux parce que ascor waxi demam day nangoo waxi tayam il reste toujours professeur hein? non mais attention tu peux être professeur sans être valable non valable là ah bon bon oui mais bien sûr ah, écoutez tout ce qui en déphasage avec avec la vérité avec la réalité avec la volonté boobu léegi tu n'es plus valable ah. su munul nekk neneen dama ne li nga fi wax maa ngi koy dégluwaat léegi mu naan dama ne nul attends je le répète une troisième fois. Mhm. nul nag man dama koy xool seeg mais non vraiment c'est monsieur tamit. mooy ñëwaat fii naan non c'est que bi may wax lii dama kii woon mais léegi maa ngi ci euh, kii mënu maa wax as góor dina toog fu mu mën waxee dëgg ak li ñu récent donc kon yaakaar naa ni. le président Macky Sall l'a écrit dans son livre xam nga alxattu yubxaa zamaanam baada kaatibihi wa saaxibil xattu taxta al ardi madfuun rab daf ne bind dafay des des années voire des siècles te fekk l'auteur bind bi moom mi ngi ci biir suuf bind dafa grave Macky Sall dafa bind noir sur blanc que moom troisième mandat bi da ko def parce que li tax mu changé waat constitution bi parce que c'est simplement pour corriger cela waaw ñu fi bëgg a a wax mooy ñuy théoriser leneen ci waa këram yi kon xanaa Macky Sall waxul dëgg kon gis nga pour Macky Sall mën a wax ci troisième mandat bi <laughs> du yomb il faut mu dajale yëpp ñëpp dajaloo muy leen leen ay naas hmm. maa waxoon lii waxuma woon dëgg. comme Abdoulaye Wade tante. déedéet Abdoulaye waxoon waxeet. ça veut dire que maa waxoon jóg naa ci. Hmm. mais kii il faut mu ne li ma waxoon du dëgg. parce que moom dañ koo laajee ci forme yëpp mu affirmer ci forme yëpp de manière ferme ceux qui disent aussi que non Macky Sall waxagu ko mais expression il y a plusieurs formes il y a il y a mais il y a l'acte Moussa bu nee doo ko fi defee ci biti Moustapha Diakhaté doo ko fi defee ci biti ku ne man ko fi defee Sori Kaba ci biti ku ne man ko fi defee oui oui oui oui mais c'est une expression claire c'est très clair il est très dama ne les traits idiots ou de naïf extrêmement naïf de penser que Macky Sall li bëggul troisième mandat hmm. du ma ne waaw du ma ne déet ah yow pourquoi doo ne déet yow yaa kan ba doo ne déet da nga bi mu ko war a waxee moo excès bu ma ma ne pourquoi ce qui est na hmm. ne la ma waxoon laa waxaat ba tey du ma ko def mu gën yomb mais ban raison la am pour ne du ma du ma du ma ma wax ne du ma ko def et puis di poser ay acte waxaa waxoon naa ci récemment sax yeneen ay kilifa yu ñu waxal ak xam nga dama ne maa kii bi su ma nee leen daal waa ji su gisul force bu ko arrêté strictement c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir su amul force bu arrêté lii ne du fi amee tem xam ne du fi ame nag tem xam ne ñii gone yi ka fa nu réew du fi amee su boobaa di ngeen dégg beneen discours mais yii su arrestation yi ko nii nii muy dem ñu koy tàcc muy inauguré ñu naan wii wii wii ñu jël yenn sëriñ si nga xam ne si ay complice am lañu di ko ci jàppale ah non non su amee occasion da koy def il n'hésite pas lu mais waxoon na ko fi ci sept ci de sept à cinq ans fan la mujj conseil constitutionnel c'est le mais c'est le même conseil euh, qui est là mais c'est la même tête qu'ils ont là certains même disent que way jox nañ ko réponse ba mag mu denc ah. Sénégalais lañu soyons sérieux de toutes les façons soyons sérieux ay góor dañu sérieux ay góor dañu wax ne dëgg Abdoulaye Wade jaar na fi ba demam jotee da koo nangu Senghor jaar na fi dana woon kenn du ñu du nguur Diouf jaar na fi bañ ko gënee daaw bi mais daal nañ ma sélectionné ñiy dem am ñu sax ñu naan woy parce que nañ ko nangu parce que bu demee élection boobu la atte mais su demee élection yi condition yi mais day dooraat parrainage am dindil ma diw dindil ma diw dindil ma diw dindil déjà Khalifa mënut a bokk déjà Karim mënut a bokk déjà Sonko mi ci contrôle judiciaire mm. daa xam fu mu jëm balaa ëllëg man pare woon naa sama yëpp ñëw ñu ne ma booy tey le vendredi chèque bi nga déposé dañ ko war a vérifier pour 48 heures ba pare banque bi liggéey samedi dimanche ba pare dimanche zéro heure la am li nga mën a am mooy quittance te quittance boo demee DGE ñu ne non quittance dossier incomplet la parce que attestation la ñu am Modou Bousso Dieng lagg ma jëlaat samay kaax ak samay parrainage jaaraat yoonu Touba ñibbi mais c'est grave ça loolu lay def filtre ko neex. xëy déclaré di wut dara. ay noonu lañ lay écarté. noonu lañ lay écarté ma dem ba xaw a sori tuuti gëstu ne leen temps pur dem sama yoon. Hmm. ah man man man sant. député daf may sonal rek li ma wax su ma ko mënta wax pardon waaye ma ñëw wax ko Sénégal set kooku amul problème <laughs> kooku amul moo ci problème. defe naa nañ la ubbil bunt yi. voilà donc kon hmm. su filtré nag ñi mu bëgg def ñi mu bëgg teg ñi mu bëgg ñi bëgg a demal élection ay yaawu jaalam. nga xam ne balaa ngoon ñu félicité ko fekk peuple ne woon nañ non patienté rek jërul jërul xeer léegi peuple sûrement dina ko dina ko rejeté comme disent certains mooy noon nañ nangoo dem rek comme conseil bi nee na waaw bi ah, Wade conseil moom dafa nangoo dem parce que Wade est plus démocrate dix mille fois plus démocrate que Macky Wade dafa bàyyi woon affaire yi ouvert ñëpp bokk Macky bokk Macky bañ ko convoqué euh, euh, journée urbaine su fekkoon ne ñibbi waatul woon du nekk candidat de dañ ko bàyyi mu ñibbi donc kon Wade du Macky Macky bañ naan nañ ko bàyyi parce que ba muy wadd dafa daanu mu wadd filtré wul kenn bu dee Macky day filtré ñi ko ñi ko neex dem ñi ko neex daan leen xëy rombaat leen mais billahi tëgg ndënd yomb na mais foo koy tëggee jafe na mhm. d'accord alors Mbissane li gën a tey xel ci wàllu <clears throat> troisième mandat bi mhm. euh, sëriñ bi wax na ko Macky Sall woon na bu fekkee ni dafa àddu ci troisième mandat wax ne par exemple du ko def wala bu ne du ko def bu boobaa liggéey dootul amati ci nguur gi ci administration bi de manière générale bu ne da koy def itam campagne électorale bi du arrêté mukk ci Sénégal dootuñu liggéey mais on remarque que ku ko wax ne mënoo nekk candidat une troisième fois mu dàq la mais ku bokk ci moom wax ko ne euh, Macky Sall day def troisième mandat dañ koy soutenir dara du la ci fekk du la faale du la wax dara loolu aussi xawul tey xel xaw na tey xel xaw na tey xel te <laughs> bu ma lay wax suma conviction sëñ bi wax na ko ci tànku euh, yootu ko lay wut donc te aussi lu tax mu war a teexe lu tax mu waroon bu amoon euh, intention ne du ko def c'était la meilleure occasion parce que tey ñu ngi jëm élection législative mhm. élection législative ñëpp xam nañ solo bu mu am ci réew mi aussi ñu war a yóbbu ay ndaw assemblée nationale treizième législature gis nañ nu mu mel jaxasoo trafic passeport trafic visa trafic ak yi demee noonu. douzième législature gis nañ ni mu meloon maanaam bon démb invité naa fi benn waa APR mu ne daal euh, soixante dix pour cent des députés de Benno Bokk Yaakaar duñ leen reconduire lu tax reconduire lañ parce que defuñu seen liggéey normalement ma ne ko ah kon soixante dix pour cent des représentants yi nga xam ne nii. benno sous la bannière de benno bokk yaakaar dañ leen élire defuñu seen liggéey ma ne ko tamit loolu ëpp na te tey quatorzième législature bi yaakaar naa fa la jëm hmm. parce que réduire nañ ko ci référendum yan député la ñu a am assemblée nationale sëñ bi exactement tey débat boobu kenn posé ko ñu ngi ci waxum troisième mandat peut être buñ ko réglé woon avant dinañ jublu ci leneen sëñ bi wala gisee woon noonu exactement débat bi c'est euh, complètement noonu rek la xëy na tajidul umur parce que bii li tax muy muy gën a bon. bu sax dañ daan dem ak toute une liste normale mais demi liste. fekk ay ay ay titulaire nga jël buub sànni ca biti. indi si client yi. sànq liste nga diviser ko indi say client pour rien que écarter ngeen. te dina saf ci moom tamit parce que moom tamit ñu war a investir ci gouvernement ñoom ñëpp. ñëw ci liste bi mais xam na ne foofu côté 19 20 la fay am maximum ñooñu bu leen falee ñi ci kaw parce que comme liste nationale boo demee ci kaw mooy wàcc. dina lay sa foofu 33 parce que surtout ou 60 lay doon 57 lay doon hmm, plutôt donc foofu dina dina dina dina fa 53 je pense am na 30 yu war a wàccaat yoo xam ne mun na leen fal bàyyi ñële donc kon maintenant na gàllankoor ñu gën a xool comme adversaire moom ak dee duñ mu dindi xolli ñëpp benn xaaju yenn benn coalition ki des moom mu dindi ay suppléant suppléant bu leen dindee door leen am na sax ñu ama day créé waat Sénat après dégg naa ko mhm. waaw moom nag nit boo xasee inhumé moom da ngaa moom yow ni nit ñuy daj sa yoon nekku ci mhm. mais ku fi séeré waat fii li nit ñuy daj li si góor di daj ci dëkk bi ren mhm. billaahi ren li nit daj ngir am xarum tabaski li mas góor dee am na góor yu ma dee ba noppi man damaa noppi rek jooy parce que xam naa dëkk bi saf na boobu. Hmm. ku ci xalaatal ay Sénat parce que ñii war a dem ci suppléance yëpp ñu ngi dañ leen noppi leen bu ñu noppee après ñu jël dara sànni la xam nga bu réew mi tolloo foofu tamit euh, ñu fi xay waxi troisième mandat kooku dëgg dëgg dëgg dëgg procureur bi waroon nay woo ñi wax waxi troisième mandat ci euh, ñooy menacé euh, ñooy menacé cohésion nationale bi ñoom ñooy menacé stabilité wu Sénégal procureur waroon nañu convoqué procureur waroon na wax surtout urbaine mu wëri ñooñu kenn par di leen jàpp c'est ça